ginnaaw CRD bi nga xam ne defee woon nañ ko bii di njaareem ci kanamu gouverneur tey jii nag dellusiwaat nañ fii ci kër si Abdou Ahad Mbacké ngir amal fi réunion bi nga xam ne mooy réunion d'évaluation ngir xool lépp li nga xam ne jëloon nañ ko ci ay engagement ngir màggal gi mën a ñoŋ ba xam fan lañ ci toll. gis nañ ne engagement yu bëri euh, respecté nañ ko surtout yi jëm ci opération de nettoiement bi yi jëm aussi ci entretien réseau électrique bi yi jëm ci vidange su fosse septique yi. yooyu moom yu ci bëri def nañ ko ba pare chef de service technique yenn yi aussi dinañ commencé seen i euh, seen i liggéey euh, li ci jëmee ni sécurité li jëm si couverture sanitaire li jëm aussi ci énergie ak euh, yeneen service yi comme commerce wala élevage dinañ ko commencé fii ak fan yi di yegg si pour engagement yi des nee dinañu Euh, chef de service yi dinañ def seen kéemtulaay kattan pour que avant jour bi di ñëw dinañ ko dinañ ko mën a matale euh, di wax rek ni ñun dinañ continuer suivi bi ànd ko ak euh, waa comité d'organisation bi ngir joyante yenn yi nga xam ne xaw na des jëme ko ci désinfection bi ak désinsectisation bi dinañ saisir incha allah ñi nga xam ne les autorités compétentes pour que ñu mën a li nga xam ne des na ci ci wàllu électricité aussi am na ay rectificatif yi ñu bëggoon a def par rapport ak branchement yi loolu aussi euh, Senelec jël na engagement te dina ci yokkaat ci onze branchement yi nga xam ne moom la ñu laajoon dinañ ci yokkaat benn mu nekk douze. pour tënk daal gis nañ ne euh, chef de service yi li ñu jëloon ci engagement bi ci ëpp euh, ñoo ngi koy doxal wala bu fekkee ne defuñ ko ba pare aussi ñoo ngi ci en cours d'exécution. dañ ñëwee woon Jarim fekk ci CRD bi. ak lañu fa tënkoon lépp ñu amoon yaakaar ci ni lan fa tënkoon lañuy weesu rek lay demee waxoon nañ ko ko sax yàlla def nag bi ñu ñëwee ci réunion évaluation bi tey xool kenn ku nekk la nga tënkoon biñ toogee saytuwaat ko yëpp kenn ku nekk la nga jëloon engagement ca CRD ba def nga ko ba mat sëkk ci liñ seede fekke ko te rafetoon nan jot ci nii lay demee ndax euh, yàlla yàlla yàlla dafa def yéen ñi ko war a saytu su préfet bi nga gërëm léegi yàlla boole woon maa ngi moom njëkk mu ñëw fi mu sama xarit sama wëllëre waxoon naa ko ca ca CRD ba yéene ji ngeen ci amit xam nañ ko ngeen mbirum Sëñ Abdou Lahad moo toll noonu nu ci nit taxawee rek cib taxawaay te ànd ak pas-pas la nga ci bëgg yàlla suñ tubaab mën na la ko defal mu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen di séentu yi ñu mboolem liñ tënk fii ñun ñëpp engagement yi ñu jël des na ko def ba mu mat nañ ko bëggee